li nu wax yëpp am na man cour suprême dindiwuma ko loolu mooy lan mooy ñeenti entreprise sax ñeenti marché yi lépp doxal nañ ko lépp am na yoon fay gi nu fay yëpp dagan na loolu cour suprême démb dindiwu ko dal ne nag euh, copte Aïda Ndiongo gi nga xam ne moom lañ ko toppee ba teg ko ci dara copteem googu ba taxu mu mën a am ay xarit mën a am ay marché moom si boppam si loolu nga xam ne daf koo mën muy expérience am sa ñu ko ñu ne ko condamné nañ si yow sa bopp boobu condamnation man cour suprême dëggal naa ko yokk naa ci ay weer muy un an yokk naa ci leneen mooy loo xam ne am nga ko yow ay du njong lu mu doon lu mu doon rek si dañ koy nangu gouvernement bee koy moom kon gouvernement bi mooy moom léegi leket yi série yi ah oui ah, yi si armoir yi inde yeex paak yi ah ak takk waaye ñu ko joxoon bañ koy bañ koy mayee ba muy nekk ndaw ah yooyu yëpp mu ngi si armoire am donc xam nga kooku espèce u aveuglement la la saisie la la li ñu ko tuddee ci euh, la confiscation de tous vos bien mais tous vos biens c'est tous vos biens man sama simis bi c'est mon bien si on confisque tout mon tous mes war nañ ma sumi ma mu def yaramu neen parce que maa moom lii c'est mon bien ça alors voilà la décision de justice que nous avons aujourd'hui rendu par une Cour suprême pour nous jurist lu nu jaaxal la jaaxal la jaaxal la lu nu bett bett bett la parce que Cour suprême du prononcer peine Cour suprême du ne ñeenti weer lañ la tëj te yokk naa ci weer Cour suprême amul boobu pouvoir Cour suprême danaan ñeenti weer yi ñu la tëj dañ la war a tëj lu ko ëpp kon boog ki la def loolu dindi naa ko yow du naa la si kaneen pour mu àtte la yow du dunaal ci keneen pour mu tegal la loolu bu ko neexee mais cour suprême du wax ne teg nañ la juróom-benni weer yokk naa si juróom-benni weer kooku pour cour amul boobu pouvoir boole ci teg nañ la juróom-benni weer teg naa si at ba pare nangu naa si alal yépp cour suprême amul boobu pouvoir dafa war a wax ne ki àtte woon deful la mu war a def kon dindi naa àtteem envoyé la feneen pour nu àttewaat la fa fa ma la yónnee nag mën nañ fa def loolu yëpp bu leen neexee mais amul pouvoir def ko voilà ce qui vient de se passer au Sénégal bon ñun les avocats nag on croit à la loi on croit au droit on croit au code euh, bu ñuy laajoo euh, li loi wax la ñuy seeti mais bu ñu la andi leen lu loi waxul teg sa kaw def nga sa warugar d'autant plus que boo jëlee code pénal bi mu ngi nii kii mu ngi ko yore dina leen ko firil article 31 du code pénal la ngi nii xanaa cour suprême dina jàng code pénal nee na ku am jëkkër ku mu doon bu ñuy nangu sa alal genn wàll gi la ñu mën nangu ku am doom ku mu doon bu ñuy nangu sa alal un cinquième la ñu mën a nangu mu ngi nii code pénal loolu wax écrit noir sur blanc mu ngi di article 31 du code pénal ñu ne nangu naa sa lépp ah, alors euh, ñun on est devant cette situation en tant qu'avocat et nous disons que c'est une nouvelle bataille qui est ouverte, une nouvelle guerre plutôt. Ils croient avoir gagné la première bataille, mais ils se trompent. Nous sommes des avocats, nous connaissons la loi, nous savons comment travailler. Je vous assure que ce n'est que le commencement.